bu mais aussi di jël li nga xam ne mooy seeni bagage te Sénégal am Maroc yaakaar naa ne diplomatie bi am na nu mu dem ba toll mhm. te yaakaar naa ne bu ñu dematul ba ñoo ñëwee waratuñu bëgg nekk seen réew am na noo xam ne noonu lañ koy waxe waxee mais pas di jël ay doomi Sénégal leen yóbbu si yeneen dëkk yu sori ñoom eh, eh, day mujj sax ña fa nekk ñoo leen di joxaat ay paas ñuy mhm. def ay bus ak i bus bi ñëw euh, parfois ay si maanaam six heures de temps dinañ ko li muy wane mooy bëggatuñu ñooñu nekk ci seen mhm. dëkk aussi l'état du Sénégal war na si maanaam war na solo traumatisme par rapport liggéey bi nga xam ne moom lañ def mooy xale yi nga xam ne ay xale ndaw lañ xamaguñu dara ci àdduna mm-hmm. ñu andi leen Sénégal gi ñu ne dañuy yelwaan nga xam ne yelwaanuñu mais dañ lay agressé mm-hmm. xëcc la boo xefulee sax parfois ñu padd la parfois sax boo xefulee ñu jël sa poset mm-hmm. mais fi ñu toll nii aussi gis nañu Jean-Baptiste moom moomee démb ci guddi ñoo ngi doon def benn opération ngir jëlee leen mais si nag bu loolu yëpp weesoo na yi gën a partagé ñu dem nga ne lan mooy xew yow laay déglu. Euh, am na communiqué bàyyi ko fële ca primature ñu ni suba euh, gouvernement maanaam ministre yi Sonko ak i euh, ministère yëpp dinañ taxaw jàkkaarloog lii di presse bi bu 10 heures jotee pour waxtaan ci situation bi nga xam moom la fekkee réew mi. na mel ni la bongo man ba waxoon rek bu subaa sa ngoon <laughs> bu subaa ca 10 ankay sa noon bu nelaw. ba dina bëri ñu laa tey ngeen di xam nag xataraayu gi weñu geeg ngelaw gi yuux bi lan la lii waa safari naan dëkk bi yëngu. Mhm. à partir daal de bu 10 heures jotee képp kuy sénégalais. Mhm. maa def defuma harcèlement la samay loxo daa set kenn mu ma ma téem a génn Macky Sall dénk ma woon dara. Mhm. dinañ xam kan mooy kan. suba Sénégalais yi may seetaan kaay ma wax leen li nar a xew suba. allez leeralal lu nga décorté ko wala jëlal sa temps. te point par point. yàkkamti woonu ah, bu subaa ca dix heures waa APR du ñu nelaw dëkk bi dina yëngu suba. Mhm. dañoo gis benn information boo xam ne la premier ministre Ousmane Sonko moo ko jàllale. Mhm. Euh, li nga xam ne moom lañ ca euh, wax moo di demee incha allah communiqué bu ñu def la. bu 10 heures jotee c'est dixième étage building administratif Mamadou Dia. Mhm. foofee gouvernement mu fa fas nañ fa toog ngir yëkkati ay kàddu. Mhm. jëmale ko si li nga xam ne mooy la ñu jàpp ne fi ñu toll nii si réew mii biñ fi ñëwee boobu ak tey lañ fi fekk la askan wi doon laam laame ak mhm. li nga xam ne jàpp nañ ne nekkul ay jëf ju rafet xam ngeen boobu ak tey. askan wi ñoo ko doon demandé. Mhm. Euh, bi nga xam ne moo di le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay euh, bi muy def euh, adresse à la nation. Mhm. di ko jëmale bi muy dissoudre maanaam assemblée nationale bi. Mhm. dafa yëkkati ay kàddu ne dina leen wax lu ñu fi fekk. Ousmane Sonko ne leen dañ fee fekk réew moo xam ne maanaam dara baaxu si. léegi suba dañoo fas yéene def li nga xam ne moo di bilan wu lañ fi fekk. bilan bi moo di. ginnaaw gi ñëwee toog ci six mois dinañ xool ci fépp foo xam ne waa APR ak waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ko jiite woon ci réew mi dinañ wax la fa nekk la fa nekk mooy anime bi nga xam ne la gestion ba demee woon anime bi nga xam ne emploi fictif bi noonu la demee woon anime gi nga xam ne noonu la ñu luubalee li nga xam ne moo di xaalisu askan wi waaye anam gi nga xam ne yenn contrat ak yenn marché yoo xam ne fii yaa ma neex yi nga xam ne moo amoon beneen beneen bi aussi mooy népotisme bi mooy beneen bi mooy aussi emploi fictif yi am. Mm-hmm. xam nga ne booba tey réew mi ñu bëree ngi yuuxu ñun lenn lañ doon seet ay rapport di génn jàpp nañ leen wala jàpp ñu leen nangam am na wala nangam amul loolu ba tey. Mm-hmm. ay corps de contrôle ñoo nekk di ko def. te Macky Sall gis ngeen ne concam ko bi mu ko teggee Ousmane Sonko bi mu ñëwee ak Diomaye gis ngeen ne mu am yenn rapport yu ñu tàmbalee génne. dem ngeen ba si réew mi nga dégg ne ñu ne of nag couleur Pastef la yor. dem nañ si réew mi si boppam baajo Camara ñu nekk kaay def li nga xam ne moo di déclaration patrimoine Macky Sall ne euh, ki nga xam ne moo di Nafi Ngom Keïta bàyyil baajo Badio bi sama baajo la. léegi nag suba dañoo war a ñëw si nguuru Macky Sall askan wi nga xam ne dañoo foogoon ne yoonu naataange lañ nekk Sénégal émergent bi mais malheureusement suba la ñuy xam ne Sénégal ñu ko jiite woon jàpp mën nga leen tuddee lépp ba mu des ay nit xam nga ay nit lu koy wane seetlu ngeen booba tey euh, ki nga xam ne mooy xale bi nekk ci ASER nga xam ne bi mu ñëwee booba tey liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la koy def. Jean Michel Sène Jean Michel renégocier les contrats li nga xam ne moo ko dox digganteem ay Seydou Kane nga gis ni bi loolu amee moom dañoo defal li nga xam ne moo di surfacturation. Mm-hmm. mu dindi loolu renégocier ko mais aussi yokkaat askan wi leneen si ay làmp yoo xam ne wala yeneen dëkk yoo xam ne dinañ ko leeral. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo nekkoon si tappale googu dañoo yónni seeni mercenaires. Mm-hmm. yónni Cheikh Yérim Seck yónni ki nga xam ne moo di euh, Pa Gulu Gulu bi nekk fee TFM. naan sa vodi moom la ñu yónni ñu ñëw di yëkkati ay kàddu jëmale ko ci xale boobu ne xale bi li mu def maanaam njaaru yoon te au contraire mhm. dañoo war a féliciter li nga xam ne moo di xale bi suba ponk boobu bu ñuy ñëw la mhm. beneen bi gis nga fii nga xam ne mooy si port mhm. Waly Diouf Bodian joolaa nga xam ne kenn xamee ko caaxaan fu la fayda rek réew mi booy dénk dëgg dëgg dénkal joolaa Waly Diouf Bodian bi mu ñëwee dafa fekk li nga xam ne mooy jëmale si li nga xam ne moo di wàllum juñ jaaj wàllum népotisme waaye aussi ñi nekkoon ci nguur gi bañ nguur gi mënta weesu même ba bi nga xam ne dañuy ñibbi di dem nga xam ne jeexal nañ ci nguur gi dañu doon jëlaat ay nit ngir duggal leen au delà ñu lekk xaalis askan wi au delà ñu luubal mais dañuy dem dañoo mujjee doon saboote te gis nga ku mel ni Bécaye Mbaye ak keneen ak keneen yëkkati ay kàddu ne fi ñu toll nii xale yu bëri ñoo ngi leen dàq ñuy liggéey xale yooyu nga xam ne dañ leen doon dàq liggéey majeure partie bi xamuñu comprendre ñu xam nga lu xew bi nga xam ne ñoom jeexal nañ ci nguur gi bi nga xam ne passation de service moo war a am dañoo demaat jëlaat li nga xam ne moo di ay emploi fictif dugal ko beneen bi mooy ñoo xam ne amuñu compte euh, compétence ba taxoon Bécaye Mbaye keneen a keneen nga gis ñu xara euh, maanaam euh, di xalangu ay mercenaires lañu wut dañ leen yoon suba loolee da ciy bokk lenn loo xam ne da ciy am beneen bi mm-hmm. suba dinañ xam ñi nga xam ne ñoom la ñu dénkoon ci réew mii di Sénégal mm-hmm. lan ak lan lañ doon dépassé c'est primature boo xoolee Amadou Ba mu nekk ca primature jamono gii. Mhm. yeggoon na lu mat ca dix milliards boo xoolee Sonko matagul sax deux xaw ma wala trois maanaam si xayma si wàllum koppar li nga xam ne am na ah, beneen bi ñu war a waxtaanee suba yaakaar naa ne bu ñu ko waxee ba pare mhm. les sénégalais war nañ xool kenn ku ne ca waa Benno Bokk Yaakaar ba mu ñëw nga xam ne ne liñ ne woon dañu ne plan émergent mhm. nekkul li am. suba bu ñu yëkkatee kàddu dinañ xam ne askan wi nga xam ne moo di Sénégal ñi nekkoon ci entreprise yi dañ doon jël suñu courant dañ doon jël li nga xam ne euh, mooy euh, suñuy oto. Mhm. ndaxte gis nga ci primature keneen keneen wala keneen ak keneen koo xam ne maam góor ngoom ci boppam bi mu ñëwee jël fonction ka ka waroon jox oto bi joxu ko ko nee na Amadou Ba moo ko may oto bi. Mhm. suba dinañ xam ñaata oto la ñu luubal ci li nga xam ne mooy ci réew mi di Sénégal c'est juste la ne suba jàppal mën nañu wax ne askan wi nga xam ne dañoo bëggoon xam li xew suba lañ koy xam bu à partir de dix heures jotee dix heures bi mooy lan bilan la ñu fas yéene def lan la gars yi de dépassé nan la ñu jëlee nit yi. nan la ñu tappale ndaxte jox nañ leen liggéeyoo leen sàcc ngeen xaalis askan wi rey ngeen askan wi yemoo leen mais ba ba ñuy dem dañoo saboté saboté bi mënta weesu nga xam ne yow yaa ngi dem. Mm-hmm. nga jël fuumalaat tabb saboté bi mënta weesu yaa ngi dem. nga dem def li nga xam ne moo di ay emploi yoo xam ne yàlla xam nañ ne ñi yaa ngi leen di signer ay contrat yoo xam ne yow fekku la fi léegi nag boo leen déggee booba tey ñoom ñu yëkkati kàddu nga dégg leen ñu naan dañoo war a génn nga dégg ñu naan xale yi ñu li nga dégg ne ñu naan chantier yi liggéey doxal ak yooyu yëpp moo di li nga xam ne moom la ñu jëf-jëf ju ñaaw léegi nag sance bi ñuy am mooy ay nit bu ñu leen dénkee dañuy jël ay corps yoo xam ne yenn nit ñu def li nga xam ne mooy seen audit gis nga Toussaint Manga bi mu ñëwee. la nga xam ne laa Diop wala keneen ak keneen def na ko Lonase suba lañ koy xam la ñu xam maanaam waxuñu ci wàllum luubal mais ci gestion bi. dégg nga ki nga xam ne moo di Fadilou tax bu mu ñëwee ca caisse de dépôt et de consignation nee na la mu fekk ci li nga xam ne moo di caisse de dépôt et de consignation ñii amuñu lépp loo xam ne war nga leen koo may. nga leen koy baal maanaam ñii ñëw lay déedee. en xam nga lu ñu war a wax dëgg-dëgg. Mhm. durant six mois ñii nan la ñu def ba tey réew mi. Mhm. ji nga APR ñu baal ma de mhm. euh, suba bu ñu expliquer ba pare dañ leen di jàppee exemple comme ay golo ji nga golo bu duggee ci tool <laughs> ñu baal ma ci wax ji golo bu duggee ci tool du jël benn lekk de mais day yàq day yàq di yàq en fait maanaam dañu wax ñu baal ma mais yëfi soxor quoi yëfi soxor la xam nga golo moom bu duggee si tool. Mhm. du lekk benn yem ca de. mais tool bi lay yàq. Mhm. mais jàppal ne ñu fi nekkoon dañoo yàq li nga xam ne moo di Sénégal. Mhm. sabotage bi nga xam ne moom lañ def encore une fois nag suba bu ñu ca jógee. man damaa jàpp ne ñii nekkoon apéro Benno Bokk Yaakaaroo ku ànd ak Amadou Ba waruñoo sax dem li nga xam ne moo di campagne. ndax dinañ la wax lan moo nekkoon primature. mais Daouda est-ce que loolu nekkul benn point boo xam ni gouvernement daf ko téye pour gën waajal boppam si élection législative yi. parce que def li nga xam ne nag moo di bile déclaration. est-ce que tey jii loolu du nekk benn point boo xam ne daf koy téye pour téye si ku jigi sa waay mhm. ñii duñu ko je saa su ne ma wax ko moom moo naa ma bàyyi sa dictature bi nga xam ne moom nga nekkee suba maanaam suba bu weesoon mhm. nii APR mhm. APR si boppam dañ ko war a dissoudre waruñoo bàyyi benn waay ju nekkoon APR dem élection suba bu weesoo Amadou Ba ak coalition xaw ma jom nangam ak nangam ak nangam. Mm-hmm. moom ak waa Bennoo ak seen nouvelle responsabilité bi waruñoo dem élection. Mm-hmm. en fait ji nga li ñu doon tëjee Ousmane Sonko. Mm-hmm. li ñu naan trouble à l'ordre public ñii li ñu def moo raw trouble à l'ordre public. li ñu naan yëf terrorisme. terroriste mënta weesu ñu jox la alal. ñu ne la yow defal ñu li nga xam ne moo di si wàllum product domaine domaine agricole communautaire ñi ngi waa Benno ak APR ñooy terroriste de. te ñun mhm. ma déglu bu baax a baax. allez tey ngeen di fay joxe ngeen xaalis boo xam ne. mosoo gis dag boobu ñu teg ko. Mhm. mais bu weesoo loolu am na benn kayit bu ñu génnoon ñu dem jël ki nga xam ne xam-xamam dafa war a wàcc si wàllu mbay nan la ñu war a yor euh, bayee. Mhm. ñu dem jël fa benn mbër teg ko fa. maanaam l'homme qu'il faut à la place qu'il faut nekk fa. Mhm. doon terroriste mënta weesu yow ñu jox la xaalis si Prodac. Mhm. ngeen tungañ xaalis ba domaine agricole ya moom la yàlla xam ne kin gisul. Mhm. doon terroriste c'est pour wax la ne suba ngay xam ne mille milliards yi nga xam ne dañ ko joxewoon fan la ñu dugal xaalis Covid bi rapport yi ñëwagul de. mais ñii askan wi ñoo naan hôpital nangam nangam wàllum santé bi ñu ñëwee lii lañ fa fekk lii lañ fa fekk lii lañ fa fekk. yow ñaati yoon ngeen dégg fi ñu toll nii li li li xew Prodac loolu ndax yenn xel mënu na ko yenn maanaam ñu ne fii benn autosuffisance dañ ko war a am beneen bi mooy xale yi dañoo war a liggéey mais nag moment bi ñu ko génnee moo neex. Mhm. et c'est bien. moment bi mooy mooy baax baax bi. waaw dañuy politique. buñ ko waxee nag buñ ko waxul Pastef day politique. Mhm. ñi nekk ci nguur gi dañuy politique. waaw moo tax man la lii xaw na xaw na rax politique. parce que ah. six après ñu ngi wax ko élection législative campagne bi dañu ubbi. Oh. ñu commencé def lu ni mel. donc peut-être dañoo benn pour pour pour diaboliser ñi fi nekkoon. du diaboliser bu leen jawalee diaboliser sàcc. Mhm. suba kay da ngeen di génnee xam nga askan wi dañ doon dañoo sàcc wala sàcc ñu jox leen 54 pour cent. Mhm. réew mi nag ngay gis ku sàcc ba pare am fit di gën a wax. suba nag la ñuy xam dëgg-dëgg ñii ndax mérité nañoo ñu jox réew mi mhm. ndax ñii mérité ñoo jox li nga xam ne moo di député en fait un sénégalais bu conscient mhm. suba suñ sa weesoo pendant les douze ans nga xam ne dañu réew da koy jëriñ waaye waroo koy jëriñoo nga xam ne ñii mais xool leen ndax yenu na maanaa ab DG ñu fal la ci deux ans mhm. nga mën a doon millionnaire nga mën a tabax kër goo xam ne nga mën a am oto boo xam ne ça coûte plus de cent millions te ñoom ñëpp seen i direction dañ koo daane ndax yenn na maanaa poste poste bi nga xam ne Siré Dia fa la nekkoon doon campagne oto yi bii bii waxi noppi ñu daaneel li nga xam ne moo di post feera si boppam ñi nga xam ne dañ leen war a fay boobu ak tey xaalis bi kenn xamul gars yi fan lañ ko dugal LONASE la fa nekkoon kenn mënu koo wax port la fa nekkoon kenn mënu koo wax caisse de dépôt et de consignation la fa nekkoon kenn mënu koo wax mais au nom de quoi ba ñooñu ci réew mi ñu dénk leen ne leen kaay leen ngeen yoral ñu ngeen dem tabax tekk ci deux ans ci trois ans am ay millionnaires askan wi nga xam ne moom la ñuy xaar amul léegi nag nguur gi nga xam ne ñoo fi ne suba mën naa wax ne genre déclaration politique générale la xam nga Ousmane déclaration politique générale boo ko def ci assemblée nationale bu la neexee sax mën nga ñëw jël ci bilan bi fi nekkoon ne bi nga ñëwee nangam ak nangam ak nàngam li nga fi fekk beneen bi mooy sa vision bi nga xam ne moom nga jëm te vision boobee si quatre axes yi nga xam ne moom lañ ko teg ñoom war nañ see ñëw. Mhm. mais suba askan wi nga xam ne dañoo mature les cinquante quatre pour cent bu ñu teekloo déglu ne la ñi fi ñëwoon def nañ surfacturation bu nangam mhm. ñi fi ñëwoon wàllum téléphone. nangam lañ fi la mhm. ñi fi ñëwoon si wàllum li nga xam ne moo di wàllum ndox lii la fi coûté ñi fi ñëwoon si wàllum transport lii la fi coûté mais nga xam ne tamit bu ñu rationaliser woon les dépenses yaakaar naa ne train de vie wu l'état du yegg fenn fi. mais bu ñu xoolee ñun suñu premier jafe-jafe bi ñu am mooy train de vie de l'état am ah maanaam xoolal la train de vie de l'état. ndaxte boo xoolee ñoom seen biir bëri na ay bâtiment yoo xam ne moom la ñu nekk joxoon nañ leen jëm ñaajo fii seen pôle ministère bi demuñu ca ñu bëri dañoo luwewaat ay batiment nekk fii ay bâtiment yooyu ñoo ko moom ñoom en personne ñoo ko moom. mooy bu ñu waxee building administratif daa am problème mooy. lakk building administratif si boppam. dans les normes li ñu xam ne moom la ñu ci wax si xaalis. bu doon taw bu doon taw si boppam. Mhm. li ñu wax am na xaalis li ñu wax building administratif li ñu si wax lakk-lakk ba fa amoon dans les normes sax lakk-lakk ba fa amoon building administratif dafa war a taxaw. am ay robot yoo xam ne mooy génn fay ko pour wax la ne <laughs> xam ne moom la dikkee building administratif rek mën nañ cee tëjee nguur Macky Sall moom ak ñam ci ànd. waaw ndax réfection bi ñu ngi doon xamal ne àgg na ba xaw ma 50 milliards ci réfection ne kese. yow boo gisee building boobee nga xam ne bu mu lakkee sax si boppam la fa matukaay pour ñu am ko pour fay ko amu fa. Mhm. yomb na leer na lii na. la ma wax daal bu subaa ca 10 di neen xam kan mooy kan. exactement ndax waaye bu buñ ca jógee. <laughs> na askan gi am mat mat sëkk. Mhm. waruñoo ñii fu ñu dugg ay yat lañ leen war a wutal bu ñuy jógee di campagne lu ñuy wax mën la diw mën lañ dénkoon direction nangam ma sàcc seen xaalis <laughs> tabax si kër takk si benn uru ay ni sama njaboot tedd ñëpp di jànge joxaat leen ma ngeen gën a pauvre mën ma gën a tekki bu ñu goree lii lañu war a baatiree campagne de mm. man la Amadou Ba un fonctionnaire milliardaire man la Amadou Ba man mi nga xam ne maa ngi dëkk Almadi yéen ak seen bi nga xam ne am ngeen ay fonction maanaam am ngeen ay fonctionnaire seeni kër yéen a ngi dëkk si banle bi man bu may génn téeméeri oto may topp yor naa man la Amadou Ba jox leen joxaat leen ma ma dem jëlaat réew mi dem jébbal ko li nga xam ne moo di France ngir ngeen gën a loru léegi nag xanaa askan wi waaye diw ñu nekk ñu ay nataka yanki uh-huh. ba ñoom di jël fekk ñoo xam ne ce sont des voleurs ñoo xam ne dañoo yàq réew mi ñu ne leen ñooñu dañ leen di dénkat uh-huh. waaye suba moom la bungamaan ba waxoon rek. suba ca ngoon. an kay dinañ xam kan mooy kan ak kan. jërëjëf daal dinaa dinaa ñëwaat ci <laughs> yow euh, léegi euh, Samuel. Mhm. est-ce que suba yaakaar nga bile déclaration dina mën a permettre ñu xam fonds politique bi nga xam ni euh, keroog ba président def ab déclaration dina xam ne carrément fonds politique yooyu fekku ci daal est-ce que yaakaar nga ni suba à travers déclaration bi gouvernement war def dina mën a xam fonds politique boobu fan ak fan la jaar. waaw xam nga mbir mi lu ci neex. Mhm.